ci mool un bu port bu ndakaaru ay téeméeri téeméeri saagu soble dal dinañ yegg si ci terre-plein bi mu toll ci daanaka juróom benn junniy tonn yu toftal ñaar fukk ak benn jóge Hollande ñëw ci réew mi direction général bu port autonome bu ndakaaru dal di dajale ay jumtukaay ngir baral liggéey bi bokk na ci ay engins yu takku waaye itam ay paleño élévateur yoo xam ni mën nañ yëkkati saaku soble yu bari lool loole ngir yembal liggéey bi nu mu gën a gaawee chargement yi ñu doublé cage li ñuy wax double double stacking day tax au lieu ñuy jël ñaari palette dañuy jël léegi par ñeenti palette. quatre palette nag rotation bi dafa gaaw bu ñu defee vingt quatre heures war nañoo mën a wàcc deux mille sept cent tonnes en jour. si kattanu yàlla acteurs yi fi nekk yëpp nank programme bi dañu fexe ba gaal gi pare mardi mu jóge fii. mu di ñetteelu cargaison boo xam ni dana tax njëgu soble bi gën a wàññeeku waaye itam danañ ci mën a jëfandikoo ngir gàmmu gi ñu la gàmmu gi nag mii lii lañ yebbi moo koy accompagner kilo soble dafa daan jar mille deux cent francs tey mi ngi jar cinq cent francs mooy résultat opération bi mooy réduction de cinquante pour cent prix mooy résultat bi. Euh, saaku soble mi ngi doon jar vingt six mille ba vingt tey mi ngi ci treize mille ba seize kilifa yi fas yéene wëyal lu ñu mel la ñuy xaarandi beneen cargaison bu nar a ñëw ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre bi ñu nee mu dara doona fukki bato yoo xam ni ñu ngi koy xaar balaa at mee jeex loole buñ sukkandikoo ci ñoom ngir soble bañ a manqué di benn yoon.